has happened, will happen, may happen, is happening. Let us know. Send an email to info at ptv.gm or call us 611-1666. Paradise TV, reflecting Gambia. mbokk yi asalaamaaleykum ñu dalal leen fii ci Paradise TV ci xibaar yi guddi gi dugg nañ ci ñaari fani korite ba léegi nit ñaa ngi màggal li nga xam ne moom mooy korite ci xibaar yi tàggat yaram ki nga xam ne moom mooy Messi dafa am mbetteel am lu ko naxari ci jongante football bi nga xam ne moom moo am yii ak yeneen i xibaar dinañ leen indil yaatal Banjawaali Mbay ñi jàpp ci boppi xibaar yi ñooy TAF Africa Global ngir yaatalal leen xibaar yi li nga xam ne mooy korité di feet bi nga xam ne moom la jullit ñi di màggal ci àdduna wërngal këpp ñun tey la ñaareeli fan bi ñu ci duggee waaye nag dem nañ doxantu fële ci tefesi géej gi muy Pokoloto ak foofu nga xam ne moom mooy Coco Ocean doon seet ndax nit ñi dinañ génn foofa wala déet waaye nag fekk nañ géej gi daal si géej gi dafa mel ni nit ñi bariwuñ fa lu néew ci ay doomu aadama ñoom lañ fa fekk ak seeni mbokk ba tax na nag suñ ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo génnoon dem doxantu doon seet ndax màggal gi àgg na ci boor booba wax nañu ñi nga xam ne ñoom lañ fa fekk bi ñu waxee ñoom nag li ñu leen wax mooy ñoom day kontaan nañ ngir fekkee gi nga xam ne moom lañ fekkee lii di korité waaye daal li tax géej gi daal wala si géej gi manqué nit loolu ñoom it àddu ci ñu bàyyi leen nag suñu ndaw. xale yi dañ de bugg dem di saliboo ji ak yooyu noonu te léegi loolu moo tax ma ne gars yi ne kon kaay la ñu organise ay tour of um, uh, pique ñu dem si géej bi ñu spend fa time ba depuis 12 o'clock lañ fi nekk nag ma ne nañ fi nekk nag ba timis nag incha allah waaw. ba léegi ci xibaar yi bu ñu bàyyee xel ñi nga xam ne ñoom ñooy police bi ñu ngi wax ne ñoom daal du ñuy faral di def seen liggéey comme ni mu waree loolu nag nekk na loo xam ne lu ëpp ci doomi réew yi Gambie dañ koy faral di joytu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy police bi farlu ci seen liggéey pour wàllu kaaraange gi nga xam ne moom la ñuy séentu ci ñoom. waaye nag ki nga xam ne nag moom mooy seen kilifa di Landing nga xam ne moom moo yor police bi mu ne ñoom day dëgg-dëgg jamono jii xanaa askan bi dañu wax ne ñoom nekkuñ di def seen liggéey comme ni waree parce que fépp foo xam ne nit fa rek yaa ngi jàkkaarloo xam ne ñoom ñooy police bi ba tax na nag xalaat yi nga xam ne ak tëralin yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def ñoom police bi am na njort ne askan baa ngi koy gis bu baax xibaar yi tàggat yaram ki nga xam ne moom mooy football kat bu mag booba nekk ci Argentine muy Lionel Messi am na lu ko naxari lool am na mbégteel bu rëy ci joŋante bi nga xam ne ñu ngi ko doon am seen diggante ak Iceland moom nag dafa ñàkk li nga xam ne moom mooy penalty bi nga xam ne moom lañ ko jagleloon loolu nag nekk na gàcce goo xam ne ci moom ndax nit ñi nekkul di séntu lu nu mel ci moom ba tax dañuy wax ne benn naataangoom muy Ronaldo moom day bu mu amee lu nu mel moom def na li nga xam ne loolu la ci àdduna doon séntu ci moom loolu nag tax na ba wax dëkkam dëgg-dëgg am nañ lu leen métti moom ci boppam am na lu ko métti ndax bii mooy njëlbéenu yoon ci biir World bi muy jàkkaarloog ay naataangoom ñu jox ko li nga xam ne mooy penalty mu ñàkk ko. mbokk yi jërë ngeen jëf loolu mooy woon xibaar yi biir réew ak xibaar yi biti réew mi bàyyee fii ci Paradise TV ñu ngi leen a ñaanal fanaan jàmm banjawaali mbay jërë ngeen jëf.